ñoŋal dëkkuwaayu askan wi Promojet tabax na ci lu toll ci ñaar fukki point de collecte ak ñaar ci région bu Thiès mu doon nag ak projet bi nga xam ne ñëw na ci waxtu woom te it am na solo lool ci askan wi. xanaa rafet lu projet bi bu baax a baax di ko di leen jaajëfal Promojet di leen wax ne point bi ñëw na ci waxtu biñ ko soxlaa parce que ku xam école xam li muy produire si mbalit bëri na parce que fu mille et quelques élèves di daje ku nekk bu indee. papier bu muy defee mburoom rek ça pose problème li ñuy wax nag moom mooy dinañ ko dinañ ko dinañ daloo projet bi dinañ ko def suñu yëfu bopp. solos bi projet bi am tax na daal ñu war a gën a tàggat nit ñi ci rek toppatoo bi ak entretien bi ndax mu gën a jëm kanam. projet yooyu am na yoo xam ne nii dañ ko jagleel askan bi. parce que dañuy waxtaan ak ñoom nan lañu ñu war a saytoo mbalit mi mais aussi am na projet boo xam ne nii éducation environnementale ci école yi lañ ko jagleel pour waxtaan ak ndaw yi pour que ñoom tamit ñu mën a am éveil de conscience suñu màggee mën ko adopté donc euh, infrastructure yi nga xam ne nii yëpp aussi jot nañ ko ci projet bi donc dinañ ko ubbi mais dañ ci def ay bac mais def fi tamit aussi suñuy ndaw tax na nguurub Sénégal jox na Promojet ay jumtuwaay ngir liggéey bi gën a jaar yoon. ci biir projet bi ci programme boobu am na aussi ay poubelles yu ñu jëloon vingt Thiès am na ci quinze mille ci départ ci région bépp quarante yëpp euh, ci région commune bu Thiès am nañ ñu ngi di ko jël si tey jaar nañ fa ba xool nañ ko. am na aussi ay bac polybennes du 16 mètres cubes ñu am na ñaar fukk ak juróom ci jébbal Sonatel pour Thiès pour mun exploiter. bi projet lu ko tax a jóg mooy gën améliorer lépp lu jëm ci wàllu mbalit fi ci Sénégal ci collectivité territoriales yi ba tax na ñu war a tàggat acteurs yi ngir gestion bu jaar yoon